salaamaaleykum mbokk yi xaritu internet yi seen seen Limametti TV moo ñëwoon tey jii defal leen micro trottoir si benn thème bu ñuy wax série sénégalaise yi ñuy laaj ndax série sénégalaise yi ñu ngi jàngale ba tey am déet ak ban série moo leen gën a marqué si 2020 yéen ak yéen dem ngeen di xaar si réalisateurs yi producteurs yi ak scénaristes yi ñu dëwër na ndax am na ay thèmes yu nga xamante ni war nañ ko laal te laalun ko ak série yi ñuy joué nan lay impacté si suñu jeunesse dafay yàq suñu xale yi am déet dinañ si xam dara bu nu duggee léegi si population bi dinañ gisante xale yi mag góor jigéen élèves yeeg ouvriers yi ñu wax nu lan lañu xam si thème boobu. Fatou Ba Menga laa tudd maa ngi jàngee Limodac si en classe de seconde SD ins bi 2020 bi daal ñu ngi tëkk ne Virginie surtout mu ngi créé ay frascas école yi te ce n'est pas normal ñu ngi wax si profit di wax si surveillance ak yooyu. delloo si xale yi ak côté éducation ak aussi wan xale yi euh, ay série yi wax ci entrepreneuriat pour gën a mën a am liggéey waaw ah, man je me Amadou Lamine Thiam dëkk ci cité bi ancien militaire sécurité mooy sama liggéey ci kër gi ci koñ bi waaw ah, garde rapproché quoi non série yi moom instant dafa jéggi daay nag wax dëgg yàlla waaw ndax man heure heure heure yi nga xamante ne booy dañoo war a jàng wala réviser seen leçon yeeg def seen exercice heure yooyu la série di daw des fois xam nga ak reportage yeeg yooyu noonu xam nga ci 2020 bi non benn série marqué wu ma nag non ñu gënee tam yoo xamante ne fàttali ko suñu cosaan suñu histoire Sénégal bu njëkk ba xam nga ak loo xam ne éducation lay doon discipline ak nu xale yi war a doxe éducation quoi waaw. Euh, man beneen beneen kii laa bëgg souligner waat euh, ci comme série yi ñuy def léegi ndax léegi série yi yeeteetuñu dañuy war dañuy jàngal xale yi ni ñuy defee lu bon wala lu ñuy demee di daal dem génn ci mbedd bi lu xale yi dul doon def sax léegi dañ koy def xale yi footuñu defatuñ dara xale yi footuñ sax footuñ sax léegi affaire góor jigéen kese ngay comme ban série infidèle infidèle jàngale wuñ dara dañuy jàpp yàq xale lu nekk lañ fay wax saaga sax dañ koy wax te film bu njëkk série théâtrale bu njëkk dañ doon jàngale comme xale yi di leen jàngal respect nu ñu war a doxalee ci biir kër gi mais léegi xale yi jàngalatuñ leen dara sur par exemple infidèle léegi xale yi defatuñ dara ay amour lañ leen di jàngal dañuy sax saaga si biir film bi si biir te loo c'est pas du respect sax si ñun ñii di ko seetaan sax xamtuma ñeneen man moom loolu moom dama koy ñaawlu torop ndax rafetul xale yi lañuy dañuy éducation de base xale yi la yàq te xale yi léegi léegi daal lu waay neex def ndax théâtre ndax théâtre yi ak lii di daw si télé yi moo tax xale yi defatuñ dara loo xam ne sax euh, boo gisee da nga ne lii jaar na yoon ndax jaaru yoon. jërë ngeen jëf mbokk yi xaritu internet yi seen seen Limametti TV moo leen loon thème boobu noonu doon wax si série sénégalaise kon dégg ngeen bu baax li nga xale yi waxee série yi muy impacté négativement si suñu jeunesse. kenn ku ne nag yaa xam ban rôle moo la si war yow parent bi xam nga rôle bi la si war yow élève bi étudiant bi xam nga role bu la si war yow tamit scénariste bi yow réalisateur bi yow producteur bi message bi lancé nañ leen que bi moo doon seen premier numéro xam naa ba beneen incha allah si yeneen thème